asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu téléspectateur Equivox TV yi yàgg maar tey nag le 28 mars boo xoolee mat na un an bëre dóor bi mu gëjee am Sénégal mars daaw la woon tey ñu ngi fan arène nationale sëñ Modou Niang moo fi woote lamb ju ànd ak dóor lay doon di lu gaa yi na mon yàgg maar sabar yaa ngee ndeysaan yaa xool gaynde yi sabar yaa ngi gaynde yaa ngi waaw waaw yaa dégg ndeysaan cey yàgg maar Daouda Fall numéro 2 à gauche takk ndeer à takk ndeer kan moo ko wayoon loo may toppe ma penn sec eh ñu ngay xeex de lii du mbapat yàgg maar boo xoolee Daouda nga koy gëdd Daouda mën a 2 takk ndeer xeex daw na jël ko daw na jël ko daan na ko takk ndeer daanu nga ay waay takk ndeer daan la ñaari yoon ñaari daanu la takk ndeer daanu ñaari jin Lamine caatu Pikine xanaa Mama Lamine numéro 2 la e door na ko Mama Lamine ak caatu Pikine Mama Lamine a ngi door caatu Pikine Mama Lamine ngay door mu ngi koy rokkos ay yàgg maar loolu metti na di abu abu rokkos ya mittina di mittina lool Babacar rokkos abu rokkos wuurul wuurul de abu mbaab duñ la rokkos ah, abu moyul rokkos <laughs> ëpp naa def Babacar abu rokkos la ku rokkos ma rokkos ah, waaw waaw ku ma rokkos gën naa rokkos maa koy rokkos parce que sama xarit nga kenn ma rokkos eh. amin amin waay liggéey rek daan na ko waaye jël ba rëy te gaaw ay waay lii booy waaru nga booy waaru nga xool supporter ya xoolal mbooloo ma ay waay waay bi mu rëy waay daanu waay daanu daanu xale bi ngay gis nii doomi Mohamed Ali la bi mën a seet Lac de Guiers numéro 2 ak B52 école de Ndiaga Sarr waaw ndeysaan boo xoolee am njool la akuk ndaama B52 Pape Diagne Seras a ko andi moo nekk na la ca ginnaaw Pape Diagne ngay noonu muy wax ak moom B52 booy melax ëf na ko ëffante nañu lañuy ñuy ëffante booy melax mi nag loolu la waaye mën a wax bëre rek lay def lii kañ maa la ko wax ñu ngi noonu de ñaari xale yi yàgg maar yaa ngoo nga gis ganaa combat bi bàyyi ci xel de njool ak ndaama la de ndaama li ko arrangé mooy jege xeex déclenché xeex daw jàpp Babacar maa leen delloo yaakaar naa tey boo melee nii li ko waral kenn la soxna na fi Fallou Fall. waaw am. moo nga def. xam nga loolu. sa digganteeg soxna si. sama yaay la sama jigéen la sama sëriñ la sama lépp la waaw mu xewle bis mu mel nii muy nday seex uuf ñëpp di jàppale xale yi waaw ah, ma ma kontaan ci te dëkk Géejawaay teg ci mu dëkk Géejawaay teg ci nag waa ah, teg ci. dégg naa mën a joxe xaalis lool. a ah, wax dëgg yàlla daal moom day def ay tranga di jàppale ay nit di def ay social baax ba bëgg a yàlla ko yàlla defal ja sëñ Modou Niane li ma ko defal moom mérite du yoon bi yàgg na koo def. waaye dafa tombeek ñu koy wax mois jigéen ñi. weewu mars. ku la ñawal. Ah, Modou Mbacke baax yaay Couture moo fi jaar. Mbacke fi jaar Modou Mbacke fi jaar Fallou. ca Colobane moo ma jox tiisi bi dagal ma. tiisi Fallou dagal ma ko ma dem Modou Mbacke ñëw def jaar fii. soxna si maa ngi lay. ñu ngi lay delloo si àdduna. yaa ngi am. maa sant yàlla tey loo yëg. tey xanaa kontaan rek. ak gisaat làmb ji ñu nit ñi dajee nii macha allah nga xam ne làmb gëj naa am ndax mbas mi ñu ngi ñaan yàlla mbas mi yàlla nañ ko yàlla teg tey li ma yëg mooy xol bu sedd ndax sëñ Modou kenn umpale suñu diggante te gor ak dignité rek moo nu boole du xaalis du dara dama yëngu ci social mu yëngu ci social ñu bokk yoon yàlla def ci suñu jàppalante ak suñu liggéey ma dem ba nekk sponsoram mu dem ba di ma tuddee làmb bon tey ngorom moom tax li yëpp am ñu koy jaajëfal di ko sant bu baax. kontaan si. ñu ngi kontaan ci yow di la ñaanal ci kaw. tay ma tëë joobe waaw waaw lu jindaake ay njaake waaw waaw samba yaa ni kan njaay waaw waaw oo daanu looy raayo ten yaa ko laale ba di jalaale baa ngi waaj a soufflé ñu ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm tey la dimanche 28 mars Boy Melex moo leen wan ginnaaw jóge fa nga xam ne mooy Kër Massar ba 52 ngeen jàkkaar loolu moo jóge Géejawaay école de lutte Ndiaga Sarr premier combat lutte avec ci ki nga xam ne nii moom mooy président su ka nga xam ne moom mooy Bira Sène arbitre na arbitre soufflé na njool ak ndaama fausse garde booy melex garde normale b waa B52 buñ ko tuddee sunu xel day dem ci Bombardier la champion ba ca Mbour borom MMA bi ñu koy ñaanal wér gi yaram ndax la ko kaar kere ba jongantewul loolu gënalu ko te xam naa gënalul benn sénégalais 100 pour cent Babacar naa leen geste bu rafet bi ngeen def jëmale ko ci ku bokk ci si club bi wala 100 saabi cent bi jàppale ko loolu mooy social grand laay yaag Pape Ndiaye ana Jiga ana Cédric billaay ana Pablo ana Bakary ba ana Insa Seydi Baye Sall ca Paris Sall fay ti yéen ñëpp bëgg naa leen ndax loolu ngeen def am na solo Oseya ana David Luiz ca Espagne ñoo ñoo def loolu benn mbokk yàggamaar bu bokk ci biir kër gi am ay quelque jafe-jafe gaa yi dajale xaalis bu baree baree bari jàppale ko ko te yàlla tax sëñ Modou ñaa ku néewi wax tey liggéey waaw loolu moom seetlu naa ko ci sëñ Modou ñaa waaye ba tey Equivox la de jarta jaawale Equivox TV e waay Equivox Anivox Arena ana Mama Lamine ana Franc Tyson 2 e Vox Arena yéen itam kenn demul ngeen des bilaay def ngeen mbir sànni na ko góos lool dum man de bu ngeen fi mat si niilee billaay bu ngeen fi mat si niilee tey ngeen xam namm naa Balla Gaye 2 man billaay namm naa Balla gay 2 wala Bombardier billaay maa namm ñooñu ñoom foo ne sa kaw la nii dox ana Ama Baldé day ñëw ana Modou Xarañ Lo day ñëw billaay dañ koy lijjanti si supporters yi kat dañoo sonn supporters yaa ngay dem booy yaa ngay dem waaye dañoo sonn ci see ci lii kat ah ay xale yu ndaw lekk avance yaa njëkk a bëre ren nga fii rek di lewaatoo ah yàgg maar bu yàggee booy yi dem man de melex ak 52 mii ba 52 de wuyoowutu aw turam loolu moom leer na ma ndax Bombardier moom bu dee moom nga tudde sa bopp billaay moom bar bi suuf lee sa kaw la jëm yow booy melex itam ak melex bu ne day day dem de waaw aw tur moom bokk ah. moom ñaar waaye bëre wu waay waxal yàgg. lii waaru la. day xale yu ndaw ay jeune war a ñëw ta xam nga jàppante bëre waaw tas lamb ji door na ko mu jël ko daw na jël ko mu dajeek moom jël na ko ba 52 sol nañ ko fu mu jëm da ko bëgg buux di daan na ko daan na ko daan na ko booy melex daan na ko booy melex daan na ba 52 daan na ko ba bës ko lii lañ xamoon kay lii la xamoon combat ba jeex na wala jeexut lu xew aaway melex daan na ko melex daan na P52 xoolal melex lii daa yàq melex kaay kaay. maa ngi maa ngi doon ziar. mais combat lu ko yàggal. tapet la tapet la. mais lu dee nga song ah mais. ko song mais moom ragal la. ragal la gëmmul boppam man bëgg ma ko nii dama ko bëggoon duma gis nga lii lu dangereux la ci arène bi lii nii lu dangereux la lamb bi bu jeexee maanaam gis nga booy gis nga li leen di dàqaate ngi leen police li lii war nañ cee wax lii nii lu jar bàyyi xel la maa la koy wax lamb bi saa bu jeexee da nga gis dañuy daw rek songandoo géew bi kenn du leen téye te lii jar na bàyyi xel parce que tamit xel daa war di ñaaw bu ñaawul du jëriñ borom yàgg maar voilà boo xoolee lambu Alioune Seye ak ñàkk jariñu lii bokk na ci li gën a problème bi yaa ngi dégg kon lii lu jar a bàyyi xel la nañ ci bàyyi xel lii nañ ci bàyyi xel kon mbokk yi téléspectateur Equivox TV yi comme ni ngeen ko xamee rek ñu ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox rendez-vous rek beneen yoon ci yeneen i làmb moo xam mbapat la moo xam làmbi dóor la ak Equivox image yu leer reportage yu neex macha allah loolu la yàlla dogal di ñaanal ñëpp jàmm di bëggee ñëpp di leen jox beneen yoon yàgg maar kontaan ci yow waaye kontaan ci xale yi booy bëgg naa leen. waaw amul amul amul benn.